Eh, ba tey ñu ngi nii taxaw ak eh, sunu coach duñ def lu dul bàyyi la nga fàttali ñu tur bi. Alassane Dia. Eh, tey ñu gis ne yaa ngi woon ci def sa teewaay ci tournoi bi nga xamante ne waa 2AFP moom lañu ñu organisé lan moo doon say tànk tey fii. waaw euh, dañ ma ci invité euh, ma kontaan ci bu baax a baax et puis aussi ma sawar ñëw ci ñoom parce que euh, boo seetloo waa 2AFP ñu ci bari dañu nekkoon sama ay joueurs ma nekkoon seen entreneur ñu pare ñoom ñu ci bari encore ñu nekkaat samay adjoint ma liggéeyoon ak ñoom et puis y' pas longtemps y' a une semaine aussi euh, ci seen soirée bi aussi ñu sargal ma euh, décoré ma donc bu ñu amee xew bu mel nii foog ma ñëw teewee ko voilà. en tant que coach naka nga gisee initiative bi nga xamante ne 2AFP jël nañ mais c' formidable c' dire que ñoom dañuy ci développement sport football et c' est normal aussi ñoom c' est d' anciens euh, footballeurs. dañuy delloowaat football euh, li leen football jox donc euh, vraiment bravo mais conseil bi ma leen mën a jox mooy euh, bu ñu passé nawetaan yi ba nga xam ni bi seen talent feeñ na nañu gaaw génn nag ci nawetaan bàyyi seen rakk yi ñëw ñoom ñu dem dugg ci club civil yi club officiel yi pour mën a encore waat seen talent loolu mooy tax ëllëg pour Sénégal mën développé cest dire dafa war nekk benn genre chaîne bu ñii ñëwee jàll ñeneen ñi ñëw donc ñoom nañu gaaw génn fii ñi nga xam ne ñi am talent. ren ñu gis euh, AS euh, Pikine jóge na Ligue 2 yeeg Ligue 1 euh, lan lan nga ñu ci mën a wax. amee ah, kontaan ci wane ni foofu mooy place am parce que stade bu mel nii boo ko amee am public bu mel nii ñëpp xam nañu Pikine banlieue la mais dëkk la boo xam ne bii vraiment bëgg nañu sport et puis bëgg nañu football te bëgg nañu équipe bi aussi donc vivement simplement que équipe bi bi yoon yàgg fa. Euh, politique bu baax boo ko fa mën a maintenir am et puis voilà ñu li ñu li ñu defoon euh, en 2014 ñu defaat ko defaat ko plusieurs fois. waaw ah, coach duñ def lu dul bàyyi la nga tàggatoo. waaw mee xanaa di leen remercier yéen tamit ci seen liggéey bi rafet na et puis di encourager waa 2AFP.